génn bari na bariwul waaye saa su génnee ngëneel lay doon ba tax na képp kuy euh, internaute képp koo xamante ne nii soppeem nga da ngay yàkkamti mu génn alors balaa ñu dugg ak moom ci li nga xam ne moom mooy ay actualité ak moom ci li nga xam ne moom mooy xew-xewu réew mi dañ koy bàyyi mu nuyoonteeg ñi nga xamee ni ñoom ñoo ñuy seetaan euh, ba noppi nag ñu doog dugg ak moom ci li nga xam ne moom mooy waxtaan bi sëñ bi ñu ngi lay nuyu. waaw asalaamaaleykum wa rahmatulah allah akbar bismillah kilo asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatu Euh, euh, ñu ngi nuyu senegal yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ñaanal yàlla di sàkk ci ñoom ñaan euh, di nuyu góor jigéen mag ak ndaw ñëpp daal ñu ngi leen di nuyu Duudu waaye di la nuyu bu baax a baax a baax yow tim di la ndokkel di ndokkel suñ soppe bi nga xam ne tey moom it wax dëgg yàlla yow ak moom yenn ànd ci site bi ci liggéey bi nga wax na nga wax nga xam ne wax dëgg yàlla moom nit ku baax la dox na dox bi dox bu am yitte ak site bu am doole bi nga xam ne yàlla dénk na ko mooy dox nekk sit boo xam ne tey àdduna bi yëpp ñoo ko ñoo ko ñoo ko nangu di ko seetaan nekk 313 tamit noonu euh, su ko defee ñu ngi ndokkeel ñëpp di siyaare ñëpp di ñaan suñ kàddu yàlla na leen fekk ci jàmm suñ fay jógee ko tamit yàlla nañ leen bàyyi si jàmm bu ko defee bu ñuy del siyaat ñoo àndaat ak ñoom ci jàmm ci barke yeneen yàlla moom sallallahu alayhi wasallam mi nga xam ne mooy jëmmi jàmm bismillah ay ca mu ngi noonu Serigne euh, Mamadou Lamine Dramé donc ba tey euh, nekk koo xamante ne nii comme ni ma leen koy waxee da ngeen koy yàkkamti waaye euh, agsi waat na comme ni mu daan agsee alors euh, sëñ bi li ñuy njëkkee ci actualité yi nga xamante ne am na mooy que ni euh, ku nekk xam na ni jamono ji cool yi bari na trop rawatina ci ki nga xam ne moom mooy Ahmed Cissé donc je pense bien que sa naataangoo la yéen a bokk xëy na benn côté li ngeen di def parce que day yëngu ci li nga xamante ne nii moom mooy faj ba tey nekk koo xam ne itam ku ñëpp xam la. mu nekk ci réseaux sociaux yi alors euh, mu am benn euh, lënc-lënc am benn euh, benn benn réeroo boo xam ne am na ci digganteem ak ki nga xamante ne nii moom mooy Ndeye Gueye ñu xam ne Ndeye Gueye itam nekk na koo xam ne ñëpp xam nañ ko alors réeroo bi ci am mooy que ni après combat bi nga xam ne moom moo amoon ci diggante Papa Boy Djiné di borom këru ndege Gueye ak kii di Nandi Euh, Ahmed Ciss wax ci loo xamante ne nii euh, wax dëgg fa yàlla euh, ñu bëree bëree bëri rafetlu wuñ ko alors loolu noo ko gisee. macha allah Doudou maa ngi lay ndokkeel bu baax beneen yoon ci question bi mm-hmm. ah di la wax ne ku mel ni ki nga laaj mooy Cheikh Ahmed Cissé kenn du natable ne communication bu jaar yoon lay def waaye nit ñaareel li muy wax rek ci la asakaam di génn ndax doomu aadama mëntu dëkk di ci wax toujours. muy jub wala muy tege ci yoon leneen la ca toppit mooy eh, ci côté sëriñ si liggéey na ci liggéey bu am solo ndax sëriñ su bëri gannaaw yàlla amet mi ñu ragal moo tax yañ daan def walla ñu koy wax oh, dafatuñ ko xam naa ci ay leader yu bëri yoo xam ne amet sampal na leen dënd waaye ñemewuñ koy sempi ji ba fi may wax ak yow ndax amet sampal na leen dënd weesuwut mu taxaw wax teg lu leer naññ te ñoom kenn mënu ko see dindi loolu feebul la ci sëriñ bi su fekkee ne yooyu daan na ko def kon liggéey na ci léegi bu am solo ndax tax na képp koo xam ne da nga jubu di woon nga mujj jub waaye ci côté Cheikh Ahmed Cissé ak côté Ndeye Gueye euh, foofu man dama jàpp ne man gëwuma sax na ñoom ñaar ñu ngi réeroo Ahmed Cissé ak Ndeye Gueye man gëwuma na ñu ngi réeroo parce que gars yi léeg ñu def benn saaru kii boo xam ne maf laay nekk nii rek ndax Ahmed moom li mu gëm muy Ndeye Gueye da ko waxoon dara dafa am lu mu waxoon Ndeye Gueye daf daf ci ay commentaire am mais commentaire bi ndey Gueye daf moom mu ne ko ay temps di xaar parce que bis dina ñëw te tontu du forox mu ne mu tontu Ndeye géey waaye mu teg ci ne olof moom xamut ku ku ku tooñ ku fayu la xam waaye Ndeye Gueye ak Ahmed Ahmed wartu fayu ko wante ak Ndeye Gueye man ci suma gis-gis si Ahmed si sa wartu fayu ko wante Ndeye Gueye parce que bu yàggul seetaan naa foo xam ne fi Ndeye Gueye di toggee mbaxal yeeg yooyu gis naa moom Ndeye Gueye ñu ngi toog Ndeye Gueye di wax ci moom di ko tooñ ñuy tooñante ñoom ñaar waaye bu fekkee moom Ndeye Gueye la tam buy wax man na wax ak Ndeye Gueye rek ñoom ñaar waaye man dama jàpp na Ndeye Gueye dafa jamono bii ñu toll moom exemplaire la ci jigéen ñi nga xam ne dañoo nekk ci showbiz bi jigéen ñi nga xam ne dañoo ne ci showbiz bi Ndeye Gueye moom exemplaire lañ ci xaw ma ndax Ahmed wax na loolu wala waxu ko te seetaan naa vidéo bi mais gis mu ne wax na ci loolu. mais bi mu waxee amet bi mu waxee yi nga xam ne xam na ko ci Ndeye Gueye ci ay faayit ci ay erreur ak yim yaakaar na xam na ko ci ay ñaawteef ci yim ñaawlu waroon na cee mën a boole lim rafetlu ndax marché bi li rafet ak lu ñaaw rek lay jaay boobu bu ci boole woon yi nga xam ne dafa rafet dana gën a rafet ndax Ndeye Gueye ku ne xam na ne artiste la mais dafa siiw mais ñàkkul ne am na lu may bañ parce que am na loo xam ne su ko nangoon fi ay moromam àgg tey àgg na fa man nag Ndeye li nga koy gis noonu maa moom. Euh, dañoo xawoon a riiroo sax ci benn émission mm. mais li ma mën a xam mooy wallaay walaasim jigéen la ju mën góor man loolu rek laa xam ci moom te itam ku bañkat piir la nag ku bañkat di la moom day géey exemplaire la ci jigéen ñi nga xam ne dañoo ne ci showbiz bi koo xam ne da ngay dem seel koo xam ne leer na la ne bu dimbale daa am yow yaa koy dimbale nga dem jàppalanteek moom ngir yàlla ba pare te bi ndey géey sëy ak papa ba léegi kenn mosul dégg fu mu tasee te ñaata sëy nga gis ñu def ci ay million caméra yi ñëw journaliste yi ñëw ñëpp ñëw ñu def ko ndoxaan moo xam ne bopp koñ laa doon boo detee ci poto bi balaa nga ga ci beneen pot bi fi ngay tegee loxo fi ngay fóoneeg fi ngay raaye ak fi ngay dugge bee caxabal ak fi sëy bee tasee benn lay dox sëy boo xam ne yow carte expression nga ko def da nga koy consommé bu jeexee boo déggee mu sonné na teet balaa may jeex nga dugg ci bitig bi rempalé ko beneen xale bu jigéen bu dagg bi baax ma démarche bi baax de dënn ba taxaw dégg nga mu am bët yu leer yow moom ngay dem jëli boo ko jëlee sëy ak moom balaa ñaari fan ñett nga tas naka noonu bu dee jigéen ci tamit mu ngi seet xale bu góor boo xam ne am na ay bisab si ceene na am na dënn bu génn ndax mu ngi entraînement comme li xew ci salle de musculation yi entraînement boo xam ne booy dem dégg nga maam sax yow xale bu jigéen bi doo sax far jiitlu ab baa ngay sol ku góor ki dégg nga maam ne fa fecc moo xam ne te te li ci gën a garaaw muy kenn du fecc say tànk ñoom ñëpp seen digg ay tëñëx rek la ñuy def fecc moo xam ne lépp ci tëñëx nga ko def donc euh, ñooñu. xale yi jigéen yooyu bu ñu demee tey dugg ci sëy liñ cee dugg jiital intérêt personnel lay nekk mm-hmm. maanaam kër gi war naa cee mën a am kër war naa cee mën a am oto même da nga xam ne waa ji sax tey fi mu la war a yóbbu yow ku jigéen ki pour mu yóbbu la fa du day nekk problème parce que pour mu àgg fa il faut mu jaar cànd la buri bu Ahmed Cissé wala mu jaar feneen ak feneen ak pour mën a am mën la satisfaire te bu fekkee jaarul foofu du la mën a satisfaire léegi na nga wut benn waaye waaye ku mel ne ab Ahmed Baye ca koñ ba wala nga am fa benn du wala keneen ngeen nekk fa da ko baaxal léegi boo demee ba yëfee soof la nga ñaan sa baat ñibbi Ndeye Gueye nekkut ci loolu moom Ndeye Gueye moom ci lim ne muy sëy ngir yàlla te Ndeye Gueye daa leen wax loo xamul jëkkëram ku ko gën gisuma ko ku yaru la fu mu na patt fanaan patt du yëngatu jëkkëram nag mën naa am suma xoolee dana ma xàmme waaye moom jëkkëram dafa am lislaam dafa yaru dafa dal papa boo jine siixut ak kenn dara waaye waaye bu fekkee ne yow da ngay liggéey ci mbir te liggéey liggéey yàlla mënu la cee teg natt wala bu la ci tegee natt doo ko doo doo doo ko sant jarut ko. Sénégal nag lu tax du avancé muy nit dafay am problème léegi au lieu que ñu dégg encouragé la mais dañ lay découragé loo. ki am problème da koy fekk ci biir poroblème dimbalanteeg moom jëflanteeg moom lu rafet soutenir ko loolu muy ndimbal. Ndeye Gueye tey dafa waroon na ubbi école du wartu jàngale fecc nday baal fecc Ndeye Gueye bàyyil fecc nday bàyyil fecc. séeri papa booy jinne bàyyil fecc yow waroo jàngale fecc sëy nga war a jàngale nday gay sëy nga war a jàngale damal nga ubbi école nga jàngale sëy ñiy wax ak yow ni yëpp seen jabar yi ne tas bu ko defee nga forme leen ñu sëy loolu la am lu may wax mais euh, ci kaw loolu <laughs> sëñ bi comme ni ma ni ma ko tàmm di di defeek moom ci ay jotaayam nii lay demee saa su ne mais ci kaw loolu gis nañ ne ba tey Ndeye Gueye yëkkatiwul benn moo jëmee ko ci Ahmed Cissé mi nga xam ne moom moo yëkkati ay kàddu kon day mel ni day firndeel euh, patt gi nga wax ci nga xam ne ki nga xam ne moom mooy Ndeye Gueye ak jàpp njàmbur gi nga xam ne moom moo ne ci Ndeye Gueye waa Ahmed moom Ahmed moom xam nga yorom yëgul fi àdduna bi toll moom li mu sant rek ci la hmm. donc tamit moom wax na Sénégal dafay liggéey sénégalais ñëw fàtte mais Ahmed xëyul rek ñëw ci méthode bi di ci ne am na ci lu njëkkoon a nekk di ko doxee di ko waxee mais comme ni muy communiquer sénégalais soxluñ communication bu set boobu bu silvisé bi soxlawuñ ko communication bi Ahmed da daf moom la sénégalais yi soxla boo xoolee suñ papa Iran Ndao maa ngi ñaanal yàlla yàlla may ko wér te guddal fanam fekkoon na fi ay tëyib sooseek aadiña sax gaa yëpp di waaraate mais bi mu andee Pythagore si waaraate bi ci la ko gaa yi bàyyi xel naka noonu Ahmed Khalifa naka noonu keneen ak parce que sénégalais moo soxla waaraate bi nga xam ne da ngay dóor borom xet tip mu soogoo siggi sénégalais soxlu raay-raayal moo tax li Ahmed da wax mu neex leen amul leneen nday taaliba sëñ Fall la moo tax mun a pat waaye nag ku ko lebal kilo ku ko lebal libre mu fay la kilo de nday kay xaw ma kañ lay doon nag waaye moom ku ko lebal libre mu fay la kilo waaw. mais sëñ bi tey tamit est gisoo ne euh, papa war na mën a xool leneen donc mu nekk ci comme activité te euh, bàyyi bëre comme du ma wax ne sax xëy na mënul bëre wala sax bokk ay nattu la waaye euh, mbir pour man boo ci nekkee lu lu yàgg benn diir di ci am ay gàllankoor laa ko mën a tuddee est-ce que doo ko teg dem xool leneen wala ba tey yow yaa ngi gis ne war na mën a am carrière bu bees boo xamante ne xëy na dina rafetaat ci làmb ji. waaw papa de bu defee loolu ñàkk da su fekkee làmb daal la xam opte pour nekk ci làmb de football de bëre ci làmb da ci yar ay nagam da ci yar ay xaram. takk ci jabaram samp ci këram yor ci famille donc jël dong mu tax muy daw kon de téese la ko gën a gore moom mi am 18 war dis defat tabax ci ay immeuble am seere ci avenir am xam ci dignité ba kenn yebut ko ci kon de mu koy gën a gore bu dawee déedéet nit ki li nga nekk ci ngay ne ba kerek mu yëf yi dala ca fekkee xam Abdoulaye da dañ koo tëj da tëji ba kerek muy xàggee ca pali ba Nelson Mandela lu ne lañ ko def dañ ko jëlee ci kos gi na ko kaay tëdd bu fekkee nag yëf yi bu méttee nga daw buy neex du la fi fekk te papa booy jinne bu bëggee daw na fàttaliku wituwaar yi neex yi mu daan xam ko yuuxul ci ko jooyalaate ci koñom ne xalaat wituwaar yi bis mën naa ñëw mu dalal ci wituwaar yi duun daan ko waaye dafa bëree ba daanu loolu il faut ñu nang ko man nag damay siifur làmb ma bëgg ñu xam ko nag mooy na góorgóorlu rek topp yoonam nekk ci li mu a ne bu ko kenn tardeel man nag xam naa ne moom jàmbur yàlla la nit ku baax la wax dëgg yàlla xam naa ko li ma koy conseillé daal mooy tey kër gii ñu nekk ay at ca gannaaw ku fi ñëwoon boo moytu ay xaaxaam nga fiy fekk ki ay gajj gëm-gëm bu boromam xam tey moo tax bi ñoo ñëw ci escalier yi la ñu fekk ñu ko kilim ni ba mu normal mu def fi ay studio am ak lépp nit am gëm-gëm gëm-gëm ngay am pour nga àgg fi nga jëm gis nga même amee amee si mi wax ni dafa am gëm-gëmam si boppam de buñ ko wullee ba mu normal kaw rek ba yaram wi tàng jër bu doon nag keneen lañ ko def kurut amet doo amancé bu buñ ko defoon keneen kur amat kerek ngay fay dootoo tàkk mais xel la am bu baax ba pare am fu mu jàpp pour dam gis nga boo amee problème nit ñi di yuuxu di jooy nañ la fekkee yow ngay yuuxu boo leen fekkee ñu yuuxu xalangul xànd boole ko yuuxu su boobaa ñoom ñu doon yuuxu dañuy noppi balaa ñuy comprendre fekk nga dem sa yoon yow sénégalais ni ñuy dimbale nit da koy rey bu mba Mm-hmm. alors est-ce que tamit du woon yoon euh, Ndeye Gueye tamit comme dañu ne euh, weddi du ragal waaye seta sa la mu génn tamit wax ay kàddu yoo xam ne xëy na sénégalais yi nañ ci mën a jàppandu jëmee ko ci ki nga xam ne moom mooy Ahmed Cissé parce que tamit jàpp nit ki di ko attaqué di ko attaqué di wax yenn wax yi bu yàggee tamit euh, mën nga ko xotal. waaw mais bu fekkee dafa tànn noppi nag mm-hmm. bu fekkee dafa tànn noppi noppi kay mu gën a fasaa wax ji. Mm-hmm. beneen ba ca tegee tamit muy man gëm naa ne man naa am parce que Ahmed Cissé gi déggul ma naa ne dafa doon tontu nee moom dañ ko waxoon yàgg mu téyoon li ñu ko wax mu ngi soog a tontu la la wax ah nday lu la wax moom day noppi ba ci kanam moom bisam moom itam mën naa ñëw mu tontu di fii ci waar wi lañ nekk oto lu mu neex neex na sa xel daj mécanicien parce que xamoo fooy paane lépp lu ñu da wax na si sóoraale suba donc ba tey